mënee nga def boo mënul nga baax. Ah, waaw lii la. keneen mu ne yàlla na fi yàgg yàlla na fi yàgg te wér yàlla na fi yàlla saxal yàlla yàlla guddal sa fan yàlla nga dund ba découragé. yàlla nga dund ba découragé. yàlla nga dund ba découragé. yàlla nga dund ba découragé. yàlla nga dund ba découragé. yàlla la ko yàlla defal. allahumma amin. man daal waaw. Ah. waaw. nga ne sama premier garab. sama premier garab. moo la. moo la. dama jax dawal naa nag. dawoon nga nag. waaw waaw sama premier garab. sama premier garab moo jox. guddi googu damaa sonal xale bi. lu tax nga sonal ko. gis nga su ma joxee nit garab parfois. parfois su ma joxee nit garab bu laalee garab bi danaan ceerno su ma yaram bi dafa yëngal ma ne ko c'est normal jinne bu nekk ci yow wala démb moom laa yëngal continuer garab su continuer rek mu am jàmm ah. waaw waaw ah. li ma la def nii mus nañ la ko def musuñu la ko def ah ah musuñu la def lii yow nga ne foo nekk ci xale bi jox garab balaa maa dem garab gi garab ma nga gis loo xale bi mbaax soo ko buñ ko joxee garab balaa moo dem nga gis loo xale bi mbaax gis mbaax waaw say garab. waaw ko utiliser deux semaines. waaw nga gis loo ko mbaax. waaw mais xale bi. waaw dafa mel ni rek dogu ci yow. waaw dafa mel ni rek dogu ci yow. waaw nee naa ko jugeel ci kii. waaw jugeel ci kii. waaw mu naa ko suba ne ko yaay damay dem. waaw damay dem tey bu ma jaar dinaa gis kii. ndeysaan ah. loolu yëpp nag. neexu la woon wala neex na la. bu nekkoon sa sago ah neexu ëpp bopp bi. gala di koy suuroo. waaw xale bi yaram bi toute nekk. ah ngir lan. cuuraay bi kan lay déranger cuuraay bi bi damay déranger. Eh, cuuraay bi kan bi damay déranger. ba woon naa bawoon yi. bawoon nga ko. bawoon naa cuuraay yi. waaw. bawoon naa ko. bawoon nga ko. waaw lu tax nga bawoon ko. dama doon sonal. dafa la doon sonal. dama doon sonal lan moo la doon sonal. cuuraay yeeg garab yi. cuuraay yeeg garab yi. waaw ak naan bi. ak gis nga moo tax damay jox nit ñi naan parce que jinne yi dañuy dëkk ci biiru nit ñi seytaane dañuy dëkk ci biiru nit ñi moo tax en général ku ma jox garab ma jox la nga naan parce que xam naa li ma lay jox da ngay dem ci sëriñ yu bëri. bu ñu la joxee garab du ñu jox nga naan da fekk ne ki ñoom ki ñuy wax da nga la koy fajal moo ngi dëkk sa biir bi yow da ngay sangu ba sonn dara fekk ne ñoom ki ñuy xeex kooku moo ngi ci biir bi moo tax en général ku ma jox garab jox la nga naan parce que maanaam jinne bi jinne bi bugul garab bi maanaam garab bi day déranger jinne bi maanaam naan bi nan la daan def ah da koy sawloo. da nga koy sawloo yëpp dama koy sawloo guddi gi. guddi gi da nga koy sawloo. waaw guddi gi day yëg day jug rek ma koy tiital ci déeg bi. waaw su ko tiital naa ko jugal. waaw su ko loxloo. waaw bu solee yére mën a ko simil. heure bu bëggee def naa fi la guddi maa koy téye. yaa koy téye. waaw tey nag xam nga ne jinne weeru nga. <laughs> tey xam nga ne jinne jàpp naa la. tey moom xam xam nga ne weeru nga tey jàpp naa la. <laughs> léegi nag li ma bëgg nga génn ci xale bu jigéen bi nga bàyyi ay famille am nga bàyyi ko ci jàmm may ko jàmm la paix mun na nekk wala mënul nekk tuub kay day def ah xale bi maa ngi ci biir bi yow xanaa déggoo li ma. yaa ngi ci biir. ci biir bi laa ne du ko funkil. yaa ngi funkil biir xale bi. maa koy funkil. yaa ngi xooleen biir bi xooleen biir xale bi. xooleen biir bi. biir bi maa koy funkil. yaa ngi xooleen xam nga ne lii du biiru nen de. biir bi maa koy xam nga ne kii ëmbul de biiru. maa koy funkil ah xooleen biir bi. maa koy funkil bi mu ne moo nekk ci biir. maa koy funkil yaa nekk fan. ak ci biir bi. yaa nekk fan. ci biir bi. yaa nekk ci biir. di ko dëgëral. ana nga waneen sa bopp ana nga jënd ana fan. dem na ba hôpital. waaw. di koy faj. docteur Cissé. docteur maa ko mujjee dugg. kan nga dugg. maa mujjee dugg docteur Cissé. ah docteur yi. bu leen gàllanké. docteur Cissé. waaw ban hôpital la nekk. hôpital Ka Thiaroy. hôpital Ka Thiaroy. docteur Cissé maa ko dugg na ko ma xale bi ma xale bi nga foyee mu ñëw di jël si rendez-vous waaw waxal maa foyee maa ko wax docteur Cissé. eh Jinne wax man waxuma man waxuma Jinne waxal lépp. waaw maa ne docteur Cissé docteur Cissé dem na ba simmi xale nga bëgg koo def lu xam ne xale bi dafa xat xamul musul xam góor musul xam góor waaw man maa def loolu loolu docteur bi maa ne ko xale bi bu jógee dama ko élevé ne ko song ko song ko mais xale bi bu jógee dafa am bopp dama tu ci hôpital ba gañ defa léegi mu fa un mois léegi ci sinwaa laa ko xiiftal ci sinwaa yu nekk côté principal fa fay garab garab bu njëkk jël foofu quarante mille quarante mille cinq cent bu demaat cinquante mille mu demaat bi mu jiyee jël nii vingt mille xale bi xaalis bu mu yor maa ko yàq xaalis du ci loxoom. ak kan ak kan mu foowee xale bi. bari na. boo ci bëggee foowee xale bi bari na am xam ne cent dix la ko jox. 110 110 la ko jox def ko ci mburu 110 la ko jox def ko ci mburu waaw 110 bi nag maam booba ne ci biir bi yoo maag 110 bi tax xale bu góor boobu jox xale bu góor boobu soose la dafa xool xale bi ay mbiram mu ne du ko bax ba xirtal ko ci xale bi pour mu liggéey ko mu liggéey ko pour mu tëdd moom ndax xale bu góor bi dafa seetlu ñu ne ko boo tëddee xale bi sa wërsëg la ubbeeku xale bi borom wërsëg la maa ko def loolu. yaa ko def loolu. waaye jotagu ko tëddee. jotagu ko tëddee. kon yëpp da koy woolu. xale bu jigéen bi fan yëpp da koy wool mais bu ñëwee fii rek day nelaw rek ko bi di métti muy nelaw rek tey toute la journée dama koo nelaw loo. lu tax nga nelaw loo ko. la journée dama koo nelaw loo fii. wax na dëgg de fii la tëral sama wet da doon nelaw rek. di nelaw lu film yenn fi day nelaw. yow yaa ko doon nelaw loo gars yi nee nañ dëgg la yaa ko doon nelaw nelaw loo lu tax lu tax. law loo juróom soor jot bëgg a dem jumaa ja di julli mu ne ko yee eh, wàññeekul yow mu naan dangay dem jumaa ja di julli xale bi dem ba fee muy rag-ragi mu jóge mu dem julli na julli na deux heures julli na cinq waaye ba mu jullee cinq ba pare dafa mel ni kun jax dafa mel ni kun jax waaw ba mu jullee cinq heures dafa ñaan yàlla ne ko tey bu ma fi jugee te gisuma kii kii bu ma faj. gisuma kan. kii bu ma faj. kii kan bu ma faj. kullu général xalif général. kullu. Serigne général. kullu Serigne général parcelle gii soriwul ah. ay ibaadoo fi fii. waaw xale bi dem na ba ci ibaadu yooyu. waaw ñu koy def doon taas di jël deretam. waaw waaw di ko def doon taas di ko talil alxuraan mënaluñ ko dara <laughs> mënaluñ ko dara moom parcelle mooy zone am mais fii. waaw mais fii. mais fii mais fii. xale bi dafa siis ne du jóg fii. xale bi dafa siis ne du fi jóg. Oh. tàccu leen Thierno Moule waay. tax xale bi siisu ne du fi jóge. am na dem parcelle. ah parcelle fii la. waaye aada topp lañ koy wax borom junne yi mu naan borom junne yi. waaw waaye bu doonul xale bi dara. xale bi bu demee rek. waaw leer na de leer na de naaj waaw. di ko jox ay ndox di ko jox ay ndox rek. muy sant ba ngay sant loo bëgg naa faj xale bi. mais maa ko téye. nga ne leen dégguma loo bëgg naa.

armé ma waaye man faale wu ma xale bi bu ma faale woon xale mu siiwal ma ah. ah. kan la demoon ci borom ci ndey kan. déedéet nga ne ma am na si ku mu demoon moom mooy xaw ma borom muusi xaw ma borom ginnaaw kooku mooy kan. xanaa jiw nañu attaqué wuñ la. waaw tey fii jigéen ñi dañu ma dara xol bi dafa dem ba ma découragé ma découragé. yow Djiné da ngaa découragé. waaw lu tax nga découragé. ma découragé si kooku. ci kan. ci kooku noonu. kooku kan. ndax day dem xale bi naan ko nii ma ko xoolal xale bi yow xale la day ay yére yu ko mais fóolewut mu dul faj xale bi. tàccu la loolu waay. waaw ah, avec Thierno Moulay. waaw léegi nag ba nga ñëwee ci kër papa kër xalif général est-ce ba nga ñëwee fii loolu dëgg la wala du dëgg. ba nga ñëwee fii. lan nga fi gis. ah gis nga may rag-ragi. da ngaa gis. sama yaay moo may am moo moom lay am nag yaayam. yaayam da koy baare. yaayam da koy baare. yaayam moom dina jubbale na ci moom. yaayam dina jubbal moo nekk ci moom. waaw kon dem na bay dugg. am ñu daanu mu wàññeeku. yaa ji bu xale bi mu ñëwee rek yaa ji fit bi day dof dofi fit bi day dof dofi yaa ngi naan ko doon ñibbi doon ñibbi du may xale bi jàmm da koy fat. parce que instant boobu noonu jigéen bi moo yëngatu. waaw danaa ko doon ñibbi ñibbi la koy wax di xas xale bi di ko xas maa koy jëf di ko xiir bi xas xale bi di ko xas xale bi xale bi day noppi rek <laughs> day noppi rek yaa ji dina la koy wax. waaye léegi nag lu ma bëgg nga bàyyi xale bi ci jàmm ak salaam nga tuub nekk suma taalibe di ma liggéeyal xale bi nga bàyyi ko liberté may ko jàmm la paix mun na nekk wala munul nekk. xale nag gannaaw xale bi moo yor seen wërsëgu kër. dama bëgg nga bàyyi ko ak wërsëgam mu mun a dimbali waa këram. mën a dimbali yaayam. loo koy defloo xale bi bu daan jàng laawa dama koy defloo mu toog leçon bi day nelaw rek bu wàccee day nelaw rek bu demee ci école bi bi mu dem daa dem ñu ne ko dul la jël. lu tax kan moo def loolu. maa ko def. yow moom bu ñëwee bu leen ko jël. yow moom sonal nga xale bi de toppee nga ko mbooloo. Eh, jàngam bi nag akama koo sonal ci jàng mi dafa bëgg jàng xale bee bëgg jàng. jàng bi rek lay nooyee jàng bi rek lay nooyee duma la fayal mu ne damay jàngi damay jàngi mu ne boo jàngee dinaa ko yàq day yàq jàng maa yàq jàng ma jàng bi ci lay demee xale bi kuy tukki ëllëg la day tukki ëllëg bi du pour du pour fii du pour fii kooku dañu bëgg nga bàyyi ko xale bi pour fal la. dina xamanteeg tubaab boo xam ne ku xees la. waaw mooy xamanteeg moom. ah dina xamanteeg tubaab bu xees dina xamanteeg tubaab bu xees. dégg ngeen jinne ngi wax jinne lu wax du du du tey wasagam ci kooku lay jaar ci dibbeeku. tubaab bu xees. ci lay jaar ndax xale bi ku ko gis bëgg ko bitti wa ma baax. waaw léegi nag yéen jinne lu tax doo leen topp bandi salte yi ngeen bàyyi ñu baax ni wala eh, bi dafa yiw. lu tax doo leen topp ñu bon yi ngeen bàyyi ñu baax ni wala bi dafa yiw dafa bëgg lu baax. dafa bëgg lu baax. fameem kenn xamu ci lu bon. fameem kenn xamu ci lu bon. fameem kenn xamu ci bon waaye maa ko bëgg a bon loole. waaye yaa ko bëgg a bon loole. di la bañ a xelam bi dama koy muy wër di wër di wër ma koy jaxase muy wër koñ day koy jël sam di dem jëm jàngi ma ne ko doo jàngi. warloo ko ba timis jot mu ñëw ñu bis ma sol ko bopp buy métti. nga sol ko bopp buy métti. ak ay nelaw. ak di ko roof ay nelaw. di ko roof ay nelaw bu tiimee kaye di bébëli. bu tiimee kaye di bébëli. di nelaw rek. di nelaw rek. yaayam naan ay fu ma jëm. yaayam naan sama doom ji yàqu na. yaayam di wax loolu. yaayam tànk maa ko téye. yaa tànk yaay. waa dama bëgg yaa ji nag dafa am fit. yaayam dafa am fit. yaayam fite ko bàyyi ci kër ga. fite ko bàyyi ci ga. rab bon la yor. bon la waaye fite ko bàyyi ci gi. yow ak rab bi yaayam bi ku gën a bon ku gën a soxor ku ëpp doole. Eh, maa ko ëpp doole. maa ngi tàgg yi. tàcc leen loolu waay. gardien tànk bu dul dox danaa liggéey macha allah léegi bu demee rek day jeex rek. day ji day jeex rek. maa ko sol day jeex rek mënatul am dara dara mënu koo am. waxtu nag du ko raw. waxtu ji guddi du nelaw. day jàmm ak digg ak tànk day jooy di yuuxu guddi gi guddi gu nelaw kër moom doo nga fay foole pour doon dee ji jum na. yaay ji jóg na. waaw xam nga lu ma bëgg. nga bàyyi ko tout tranquillement nga tuub ñëw nekk suma taalibe defe naa ne li la def nii tey musuñu la ko def n'est-ce pas. musuñu la ko def. musuñu la ko def. ma koo def. ma ne la def. xale bi sëriñ bu dem mu xoolee ay mbiram dama laa fàtte am na ku ne Fass am na ku nekk Fass waaw. waaw. kooku lay woote day am am mu ngi naqalee jigéen yi waaw. moom lan la. moom danaan sëriñ la. nu mu tudd. <laughs> nu mu tudd. Ngom la sant. ah. Ngom la sant. Ngom la sant. nan lay naxee xale jigéen yi. danaan leen da am ruwaan. waa danaan leen da ngeen am ruwaan waaw. ruwaan baa ci yéen bu ngeen amee vingt ans ruwaan day ne ci yéen. waaw bu ngeen ko dindiwul doo ngeen am lu baax. waaw naan ko dangay ngay jël papier. waaw nga jël espèce bu góor nga def ko ci pour sa ruwaan mën a dem. day duul day tëddee xale yi. nga day tëddee xale yi. nga dem na ba sol kapotom ba nga xale bi xale bi fa am bopp yaayam da ñaanal. dafa am bopp dem na ba dindi ne kon naa la def ko ba mu jege xale bi dama ko xoon énervé di ko énervé ba di konk cuy léegi bu gisee xale bi rek day énervé naan nii eh yow mënu ma laa demal demal ma ne fii la lépp di xewe fii la ñu wax la yëpp diine bu bëgg a wax fii lay waxee diine bu bëgg a wax na de na jar na. xale bi. dem ko yow macha allah dafa xool xale bi. da ko macha allah ah ah ba xale bi. nga ko jigéen nga ba mu simmee xale bi nee ko jigéen nga de jigéen la ko ko wax jigéen nga. ba mu sumee xale bi nee ko jigéen nga. ba xale jigéen nga. naan naan jigéen nga. jigéen nga. dem na ba ci bi xale bi naa ko dama dama lay defal examen bi pour bac bi mën naa lax note yoo am. lii lii PC 18 ngay am SVT 17 16 day duul dafa bëggoon a tëddee xale bi rek. te xale bi yooyu bat bi rek a ko ñoroon. bat bi rek a ko ñoroon mu ne ko la def loo xam ne boo ñëwee ma la tëddee rek bat bi dalay kii daf dalay yomb. ah bat bi dalay yomb xale bi dafa am bopp bu toogee rek yaram bi day rëg-rëg ma sol ko ma sol xale bi ma xool sëriñ bi. waaw ma ne yow. maa ko ne ko yow xale bi dugg naa ci moom de mais moo ñu ëpp gopp. dugg naa ci moom mais moo ñu ëpp gopp ñi ngay ndax du moom. ñi ngay tëddee du moom. ko ñi ngay tëddee du ba mu njëkkee xool xale bi dana ko rab bu bon nga yor munu laa faj xale bi dellusiwaat dafa fanaanoo xale bi xaar ay mbiram moo tax. ne ko dinaa ndax damaa am mooy wut si moom lay jaar xale bi ma lëbbeeg moom rek samay buntu dañuy wér damay dépassé kooku ca Fass la ne. ah la ne yorut benn xam. yorut benn xam-xam yorut dos lay jaay ak ustaas ustaas dafa yor daara foofu ustaas mooy métier mais faj métier. da cee bëgg a boole faj ne mooy métier xale bu jigéen bu ñëw mu tëddee moom waaw am na ñu muy tëddee. ah am na xale yu jigéen ñu muy tëddee. c'est vrai am na ñu muy tëddee. waaw am na ñu muy tëddee bari na am na xale yu jigéen ñu muy tëddee ànd naa ak sama xarit daa ngi may dégg mu ne xarit bi xale bi mu ne xarit bi yow i sa xam nga xale bi ki nga ànd ak kooku xam na góor mu ne xarit bi xaritu xale bi xam na góor. day dóor dafa xale bi xool ñoom ñaar kooku kooku bu bon la yor moom it xale boobu day xoolal rek ani tam la. waaw ani tam la ñooy ànd. ani tam la xaritu kan la ki nga dugg nii waa bi. ban xale bu jigéen. xale bii. ban xale. xale bii soxna. xale ban. soxna bii soxna mu nekk. soxna bii. ana bu. soxna moo nekk na. mu ngi nii. yow ana nga jinne ana nga. maa dugg ci soxna mi dugg ci biir bi rek falankulaay. dugg ci biir bi rek falankulaay yuuxu guddi gi naan ay yaay sama biir bi sama biir dama naa ba dee réglam dee réglam mu tiit. demoon nga ba tee réglam mu tiit. waaw ëpp ma ko defaloo bu rek xale bi day yaakaar ne ëmbul mu jigi da naan man de defuma lu bon man naa war a ëmbee man de defuma lu bon fan naa war a ëmbee. ma ne ko demal am na benn sëriñ bu ne ko yow da dama laa jox garab benn meen moo jox garab nga yàq may day duul sëriñ boobu maa wax loolu loolu xamul dara moom it <laughs> ngi fee waaw mu ngi fee caaro yi caaro yi moo ngi siiwal sëriñ si ba bu ñëwee ànd ak beneen xaritam examen yi mu ne ko yow naay am nga ko yow xam nga ko instant da ngaa duul xale bi xamul dara xale bi dafa soccat ba yàqu. ah xale bi dafa soccat ba yàqu xamul góor xale bi weena ni musu toll nii maa ko koofale. yaa koofale weenu xale bi. maa koofale xale bi def ci moom fii ween bii. muy métti maa koy def muy métti di ruux. di ruux ku ne mu dem dem na ba naan dafa cancer. cancer maa dugg ci ween bi dem naa ba génn ween bi meew nga naan lan. nga ne. bi dem naa ba génne ko meew. te te moom ëmbul. te moom ëmbul. waaye tàccu leen leen waay. avec Thierno Moule Sow. tout est possible. waaw. man dama am ku ma ànd benn jinne bu ma àndal. dafa am benn jinne boo àndal. benn saytaane. saytaane bi nu mu tudd. saytaane bi jigéen la. jigéen la. moom la. dëmm la wala du dëmm. dëmm la maa moom maa ko def kii moom seen famille bi mu la bu tëddee sax ñoom duñ am jàmm. xale bu tëddee. ñaari fan yi xale bi fii. waaw dañ doon laaj xale dem fan dem ñooñu ay dëmm la. ay dëmb lan. dëmb am na wala amul. dëmb lan am nan xale boobu nag dafa xool xale bët rek. xaritam la mais da koo xool bët loolu am da ci teg bëtam. xaritam la mais lan la dëmb la. dëmb la moo gën garaaw yaay. kon gis ngeen gars mu nga am xarit fekk dëmb la. léegi nag yow moo garaaw yaay yow noo xamee ne dëmm la. ay dam boobu soxna Jéy la tudd. soxna Jéy la tudd. nga ne. ay dam boobu soxna Jéy la tudd. jinne wax de man de waxuma de. ay dam boobu. waaw waaw. man de xaw ma ko. waaw mosoon naa jël xale bi tënkal ko ci moom xale bi fa am benn sëriñ bu seen kër xale bi mu yor loxo boobu xool ko xariñ bi Gàmbi la jógee daa am kum loolu liggéeyal foofu kër xarit boobu xaritam boobu. xale bu yore loxo di jooy sëriñ xool ko xool ay mbiram mu ne ko yow eh, bu guddee nga ñëw ba xoolal la say mbir ànd ak sa yaay sa loxo bi dañ koo téye waaw korog ba mu xale bi ba mu duggee ci néeg ba génn xaritam boobu kanam gi dafa changé muy jëfur ci kawam aa ah? ko yow sëriñ sëriñ yi yegg sa xaalis boo ko dégg dem ba boo ñëwee di asale nit xale bi tontu na ko ne ko yow loolu gaaw na loolu gaaw na di loo si mën a gisee sa bopp yow loolu gaaw na mu ne ah du gaaw gaaw mu ne ko man ngay tam man ngay tam dem dàq xale bi ba ci këram xale bi ne ko dama la ñu ragal man maa ëpp ndax ngeen ay yéeféen ngeen ñu bon ngeen du ngeen jullu du waaw xale bi def na ko loolu kooku maa téye xale boobu da koo da koo bi 27 saytaane ko topp. 27. saytaane. ay 20 kan la demoon ci borom ci ndey kan. déedéet nga ne ma am na si ku mu demoon moom mooy xaw ma borom muusi xaw ma borom ginaar kooku mooy kan. fan. léegi sa tur nit sax. ah. kooku sa tur nit léegi. lu tax. sa tur benn nit. big bi big boobu 18 la ci naroon a am bu jógi 7 la am 7 matière boobu 7 am mu njëkkati troisième jouru bac bindul xale bindul maa tee mais kooku borom jinne la kooku kay waroo woon téye big yi maa tee big yi kooku borom jinne la lu tax xanaa jinne mi attaqué wuñ la da ngaa découragé. waaw lu tax nga découragé. maa découragé si kooku. ci kan. ci kooku noonu. kooku kan. ndax day topp xale bi naan ko di ma woo xoolal xale bi yow xale la day bubboo sol ay yëre yu bëri def ay rastamaan yàlla may na ko mais fóor la wut mu dul faj xale bi. tàccu la loolu waay. waaw ah, avec Thierno Moulay. waaw léegi nag. nga ñëwee ci kër papa yi ci kër xalif général est-ce que ba loolu dëgg la wala du dëgg. ba nga ñëwee fii lan nga fi gis. maa ah, may diital may rag-ragi. da ngaa gis. mais yaay moo may moom lay ànd ak yaayam. yaayam da koy baare. yaayam da koy baare. waaye moom dina jukko la ne ci moom. yaayam dina jukko moo nekk ci moom. waaw kon nag dem na bay dugg. am ñu daanu mu wàññeeku. yaa ji bu xale bi ñëwee rek yaa ji fit bi day tëf tëfi fit bi day tëf tëfi yaa ngi danaa ko doon ñibbi doon ñibbi du may xale bi jàmm da koy fat. parce que instant boobu noonu dina bi moo yëngatu. waaw danaa ko doon ñibbi ñibbi la koy wax di xas xale bi di ko xas maa koy jox di ko xiir bi xas xale bi di ko xas xale bi xale bi day noppi rek day noppi rek yaa ji dina la koy wax di ko di ko doy noppi. waaye léegi nag lu ma bëgg nga bàyyi xale bi ci jàmm ak salaam nga tuub nekk suma taalibe di ma liggéeyal xale bi nga bàyyi ko liberté may ko jàmm la paix mun na nekk wala munul nekk. xale bi seen kër naa moo yor seen gannaaw xale bi moo yor seen wërsëgu kër. li ma bëgg nga bàyyi ko ak wërsëgam mu mun a dimbali waa këram. mun a dimbali yaayam. loo koy def bu daan jàng laa wax dama mu toog leçon bi day nelaw rek bu wàccee day nelaw rek bu demee ci école bi mu dem ren bi mu dem pour inscrire daa dem ñu ne ko dul la jël lu tax loolu kan moo def loolu maa ko def yow moom bu ñëwee nga xale bi de toppee nga ko mboor jàngam bi ñàkk ba koo ci jàng mi dafa bëgg jàng xale bee bëgg jàng jàng bi lay nooyee jàng bi lay nooyee waaw magam benn dana ko duma la fayal mu ne ko damay jàngi damay jàngi mu ne ko boo jàngee dinaa ko yàq day yàq jàng bi maa yàq jàng bi ma ci lay demee xale bi kuy tukki ëllëg la day tukki ëllëg xale du pour fii. du pour fii. déedéet. kon nag kooku dañu bëgg nga bàyyi ko. xale bi du pour. a ko na sonal nag. 2017 deful bac. ah est-ce que xam nga loolu. 2017 deful bac. 2017 deful bac de. lu tax deful bac. dafa dem di waaye du baax dafa dëgër bopp xale bi xam bopp. dem na déposé octobre octobre bu ñëw nga sol ko rek. di ko nelaw loo rek. di ko nelaw loo rek di ko nelaw loo rek. di ko nelaw loo rek. a jàng di di ko ne dawaloo ba léegi deful bac bi ren def na ren moom bac bi dafa leeroo. ren dafa leeroo. 2018 bii xale bi dafa doon am bac. léegi a def bac ba mu ne la ñëw ci yow. ba mu ñëwee ci man. ba mu ñëwee ci yow ba jox la lem lay jox. waaw. dana day ñibbi. waaw. yaayam ne. nekkul day def bac nga jàppal yaay ji bac bi rek ba ko associé ah. yaay ji dafa bëgg rek mu am bac xale bu jigéen bi yaay ji bac bi rek la bëgg ah. ndax ay moroomam ñi maase loo ñoo xam ne ñoo leen daa waxal dañuy toog nii xale bi di leen waxal di bind fooy di leen jàllale ñooñu def nañ léegi ñu ngi master 2 xale bi mënul fexe ba am bac maa koy téye yaa koy téye waaw léegi nag jeex na wala jeexul dinaa ci biir bi laa ne biir bi ci ne dama ko mën a dindi ko ci biir. daa doo ko mën a dindi. ne fi doon ci biir bi nga nekk nga farankulaay nga def du lekk dara lu mu mu lekk rek ne. demee hôpital naan estomac def na rajo bi fibroscope bi. estomac. bi. jaar ci colique. muy ba di ko mu tuuti nga rey ko mu dee. waaw dama koo fattuloo. mais <coughs> yow soxor nga de. dama koo fattuloo def ko muy ok. yow daal bëgg nga ok muy ok. ok ok la doon def. dese ñu maa ko def loo sëriñ si naan ñu teel affaire saytaan. ah yaa def loo médecin ok. waaw maa wax loo médecin ok bu defee analyse rajo du gis dara estomac rek lañ koy estomac estomac. estomac dañuy dul estomac amu ci. dañuy dul estomac fii la ne ci biir bi maa fi ne. yaa fi ne. waaw ci biir tàcc leen ci ne bi waaye. gannaaw. estomac de. waaw xale bi. ngelawal rek. xale bi day lan. day ngelawal rek. day ngelawal. Thank you. السلام عليكم جنة السلام عليكم جنة انت سايا قول يا سايا danga ko bàyyi wala doo laa ne ak ci biir bi waaw bopp bi ci biir bi bopp bi day métti bopp bi day métti waaw xale yooyu buñ ko gisee duñ maa koy def. yow yaa koy def. du am jigéen de. du am xaritu jigéen. déedéet lu tax. xaritu góor rek lay am. jigéen ju da jigéen ju ko gis bañ ko. jigéen ju ko gis koy bañ. léegi nag xam nga lu ma nga génn ci moom ndànk yar ngay génn ci moom ndànk na nekk wala mënul nekk. mooy def ci biir yow nee naa la xale bi boo ko bàyyi day dem. waaw léegi nag dama bëgg nga bàyyi ko ci yar ak teggin sinon day tàng de ça va sofee. dem xale bi xale bi fu nii ki muy wax ak téléphone ki ko bëgg nii ah bu wax ak maa koy def muy xale bu jigéen bi xale bu góor bi du nekk alwaa nii lay def. nan may def taxawal alwaa yaay taxawal. alwaa góor kooku. lu tax def loolu rek. nga ne. ko bébali woo mi bébali rek. bébali. waaw. maa ko def. waa léegi. waaye xale bu góor boobu dafa am bopp de moom moo ma yam de. dafa am nee na ko baal kii. maamam sëriñ la. dafa xool xale bi ne ko am na wërsëg waaye daa am lu ci moom maa ko def. mu ne ko baal xale bi ko bawul sa dee mën na jeexal. Aliou Ngom de gëmul loolu du gëm loolu day topp ba sës. dëgg la xale bu góor boobu ku bëgg xale bi la. ku bëgg xale bi la. ku bëgg xale bi xale bu góor boobu dana wan dalay dolli yow. man waaw. dina Angleterre. dana la dalay dolli dalay woo chaque jour. doo ko jël. ndeysaan di la woo naan la jàppale ma sama soxna si. ndeysaan jàppale ma sama soxna si. am naa yaakaar ci yow. ndeysaan waaye soxna si bu ñëwee rek maa koy wàññi. waaye bu ñëwee yaa koy wàññi waaw. waaye tey nag. tey du wàññeeku. tey dama koo nelawloo. tey da nga ko. nag dimanche ba mu fi ñëwee. waaw bopp bu métti la yendoo. yaayam du mu gaaw gaaw la ko garab ko tari yaayam jàngul loolu de jàngul alxuraan loolu de wax na la. waaw. nag dañu bëgg nga bàyyi ko ci yar ak teggin wala ma tàngal ba mu tàng jër jër tàngal ba mu tàng jër tàngal ba mu tàng jër daay ma tàngal wala ma saba na génn wala ñu génn na génn wala bu mu génn génn wala bu ñu génn. eh avant génn na tuub tuub tuub génnagul xaaral xaaral xaaral yow noo tudd. jaan bu góor. jaan bu góor kay war nga am tuut. noo tudd. Unku Ndunta. nga ne noo tudd. Ndunta. nga ne. Unku Ndunta. unkundunta kii nee na xanaa sinuwaa nga unkundunta gaa yi ñu leen unkundunta unkundunta unkundunta maa ngi lay may pause maa ngi lay may pause ah temps yàgg na dugg xale bi. yàgg nga dugg ah, waaye léegi nag da génn ci xale bi ungundun taa. yow jaan nga. yow mun nga xeex. jam na ak ñaari jigéen. jaan nga. ak jaani jigéen. ana jaani jigéen yi. ah ñooñu. ana ñu. ñoom laa yabal am say taalibe di yabal. jaani jaani jigéen man góor laa. maay seen baay. yaay seen baay. mais maag yow kan man maay sa baay. waaw. maag kan mooy kan mooy baayu keneen ki. maag yow. ah. Jinne Jaan. Jinne Jaan bi mooy lan. Untu mooy lan. Jinne la. Jinne la. mu ci biiru xale bi. moom ci biiru xale bi. léegi xam nga lu ma bëgg nga génn ci xale bi yar ak teggin. on est d' accord. ma lakkee ba ma génn si xale bii. waaw xale bi fu mu mënti ne dina fàtte de. ah, ah. fu mu mënti ne dina la woo. dina ma woo. waaw xale bi ku am kóolóore du fàtte démb. ku am kóolóore. kooku lañ ko bindee loolu ko yaree. xale bu am gerte la. ah. maa ah. ko sonal man Uli. Ntaa. yaa ko sonal. Ntaa. Untuduntaa. Ntaa. Untuduntaa. Untuduntaa. Untuduntaa. Untuduntaa. Untuduntaa. Salaamaaleykum Jinne salaamaaleykum Jinne. Kiti Saaya. bala ya saya wannan ta Allah ya saki nan da ya Kulu Allah Samad Ya billahi Ya wallahi Alfa Jan Alfa Ibati Kurjin Sojin Fantajin Sojin Korayen Nabiyen Nabi Nure Duriyete Soji! So Soji! He's Samarus! Samsi! Samarus! Samsi! Samarus! Samsi! Samarus! Samsi! Samarus! Samsi!

كل الله سمر يا بالله يا والله الفاي جن الفاي باتن كورجين سوجين كورجين سوجين فما جمون جمون تبين ولا بير في لا نك yaa ngi ci biir. yaa ngi ci biir. lu tax nga nekk ci biir bi. maa ngi ci biir fii. fii. fii fii fii fii. bàyyi fii fii lu tax nga nekk ci biir bi. lu tax nga nekk ci biir xale. mbir bi li si nekk amul dëkk sax du am doom. nga ne. maa ne ci biir bi. yaa bu amoon jëkkër sax du am doom. bu amoon jëkkër sax du am doom. damay rey jëkkër ji. da ngay. damay rey jëkkër ji. lu tax ngay rey jëkkër ji. dama koy rey. lu tax. ndax xale bi man maa bëgg a nekk ak moom. yaa bëgg a nekk ak moom. ah waaw dama koy fiire. dama koy fiire. dama naa dégg ngeen de. dama koy fiire. xale bi. doom bàjjanam. doon doom doomam. bëggoon na koo ñaas mais turandoom dafa am gàllaaj day timbi tukki di dem di ñëw bawu dooma bi moo tax ñëw ci xale bi mais bëgg naa jël si turandoom maa ko bu mu ñëw. yow yaa ko ne bu mu ñëw. maa ne ko bu jël sa turandoo yam. maa bu jël sa turandoo yam. waaw yow daal ci ne bi yow da ngay commandé bu jigéen ku bëgg a dimbali bu jigéen bi. fii dama koy commandé déggoo li ma dama koy commandé chaque jour ma ne ko demal seeti diw mii xale bi chaque jour ma amante xale bu góor bi mu xamanteeg te lan demee ma ne ko demal seeti ko. maa koy def maa koy def muy seeti xale yi déggoo ma de. non dégguma la de. maa koy def muy seeti xale yi ci xale yi. xale yu yi bëgg di nekk ak moom mais dafa am bopp. dañuy bëgg di nekk ak moom mais dafa am bopp. xale bi ñaata góor ñoo ko bëgg a def lu bon ñaata góor a dem ba tim ko bëgg koo def lu bon ñaata góor mënoonul ko dara xale bi bopp benn taw. moo tax ma sonal ko dafa rëy bopp. dafa rëy bopp. waaw dafa jàng alxuraan nag. dafa jàng alxuraan. waaw yow alxuraan. waaw eh, bu bon nga naan lan. nga jaan laa jaan bu bon laa yéefar laa. jaan ju bon nga yéefar. mu naan lan. unkundun taa unkundun taa jaan jaan jaan jaan jaan jaan unkundun taa.

Allah ya saginanta Allah kulu Allah sabar ya billah ya wallahi alfayi jen alfayi batin kurjin sojin na fantarkin na kurjin sojin na udi korayan na nabiyan na nabi nure nure ce sojin so sojin kis kasu mai Samsi sama ruus Samsi sama ruus Samsi sama ruus Samsi sama ruus Samsi sama ruus Samsi sama ruus Samsi sama ruus Samsi masaya wannan Allah ya saki na jirgin kulu Allah samad ya billah ya wallah alfa yu jeri alfa yu batin kurjin sojin na bantajin kurjin sojin na undi korayan na nabiyan na nabi lure lure ce sojin sai sojin kisi sama ruus samsi sama ruus samsi sama ruus kiti saya wala ya saya walanta Allah sai gananta Allah hulu Allah samad ya billah ya wallah alfayi jani alfayi batin kurjin sojin bantanci kurjin sojin na ul karayan na nabiyan dureete soojini so soojini kiisi kaasa koye kaasa samsi sama ruusi samsi sama ruusi samsi sama ruusi one woni jinnaji soɓe ɗi jaabi tan aɗe cuma fajiru najiru piti saya boloya saya hulunde allah e saginande allahu hulu allahu sabadu ya billah ya wallahi alfayu jeen alfayu batin gurjinji sojinɗo pantanjinɗo gurjinɗo sojinɗo ɓuuji koroyonna nebi yonna nebi ndure ndurete sojini so sojini kiisi kaasa koye kaasi samsi sama ruus samsi sama ruus samsi sama ruus samsi sama ruus samsi jinnabu dagar bobu mo nekk fu waaye moom dëgër dëgër nangu rek dañu rob beneen chef bi Saya, xanaa nga ngi toog. kii ci Kantar xaw ma nag. maa ngi leen di eggal suñu waxtaan bi. Kuntu Nunta. waaw. salaamaaleykum jinna salaamaaleykum jinna. Kiti Saaya. Boloya Saaya. ولن جعلنا سجنا جعلناه قولوا الله سبت يا بالله يا والله الفاي جاي الفاي باتي كوجن سوجن فانتن جن كوجن سوجن نقول قراينا نبينا نبي نوره نوره جاي سوجن سو سوجن كيزي كاسا كوي كاسي سامسي سامروس سامسي سامروس سامسي سامروس سامسي سامروس Hey, hey, hey. Samsi sama ruus Samsi sama ruus Samsi sama ruus idi saya faraya allah e seginande allahu hulu allahu samad ya billahi ya wallahi alfayi jeeɗi kurjin sojin ɓe uuji koroyenna nabiyenna nabi ndure ndurete sojin so sojin kiisi kaasa koye kaasi samsi sama ruusi samsi sama ruusi samsi sama ruusi samsi sama ruusi wonin ɗanɗo sagina ɗuɗo huɗo allah sabotu yo bilah ya wallahi alfayi jeewi alfayi bati kurtin sojinna bantankin kurtin sojinna uuli koroyan nabiyan nabi nure nure te sojin so sojin kisi gasa ɓoy gasa samsi sama ruusu samsi sama ruusu samsi sama ruusu samsi sama ruusu samsi sama ruusu samsi sama ruusu samsi sama ruusu saya wala yaa saa yaa wanen di andi sigina kullu allah samad ya billahi ya wallahi ya billahi ya wallahi alfa yu jay alfa yu jay alfa yu jay alfa yu jay alfa yu jay alfa yu jay alfa yu jay alfa yu jay alfa yu jay alfa yu jay sonji na batanji kuti Oh! salaamaaleykum jinne salaamaaleykum jinne fafal fu ñaande amadu yow ni ñaande inna allah anna allah bi ibaadi basiran basiran basiran basiran basiran basiran basiran basiran basiran basiran basiran basiran basiran basiran basiran ji basiran ji basiran ji basiran ji basiran ji basiran basiran basiran basiran basiran salaamaaleykum jinna salaamaaleykum jinna salaamaaleykum jinna salaamaaleykum jinna sigide falle yanta werre cikko falle yanta werre cikko falle yanta werre cikko salaamaaleykum jinna salaamaaleykum jinna fonfawlu funnaange amor yow hirnaange amor yow hirnaange amor yow hirnaange amor yow hirnaange inna allah anna allah

jinne bu fi ñëw egg ci yàlla fii kër yàlla la jinne bu fi ñëw egg ci yàlla allah allah allah yéen ñëpp yuuxu leen allah salaamaaleykum jinne salaamaaleykum jinne salaamaaleykum jinne salaamaaleykum jinne salaamaaleykum jinne salaamaaleykum jinne salaamaaleykum jinne xam nga micro bi dafa jeex micro bi dafa oyof ah, wala yaa saa mënuñ ci ënd sama yaa ma Alpha you good, Alpha you good. Karayen Nebiyen Nebi Yüre Yürete Uy Yürete Gay xeexu ci ne laa bëgg xeexu ci ne xeexu ci xeexu ci xeexu ci xeexu ci xeexu ci eh kiti saa yaa pula yaa saa yaa ولنت سجننت الله قولوا الله سمد يا بالله يا والله الفاي جاي الفاي فاتن دوجين سوجين بنتجين دوجين سوجين أول أرى الله نبي الله نبي الله نبي الله

Nabiyana, Nabiyana, Nabiyana, Nabiyana, Nurete, Nurete, Sojini. Sakin, sakin, sakin, sakin, sakin, sakin, sakin, sakin, sakin, sakin, sakin, sakin, sakin, sakin, sakin, sakin, sakin, sakin, Bintiya ne kon, Chamo kon, Damaka. Bintiya kon, Chamo ne kon, Damaka. Bintiya kon, Chamo ne kon, Damaka. Bintiya ne kon, Chamo kon, Damaka. Bintiya kon, Chamo chamone kon dama ka dindiyane kon chamone kon dama ka dindiyane kon chamone kon dama ka dindiyane kon chamone kon dama ka dindiyane kon chamone kon dama ka dama ka dama ka dama ka dama ka li nga génn ci biir ma tuubal la. ma tuubal ah ci biir moo ngi fi waaw xaaral xaaral moo ngi fa xaaral xaaral eh. non xaaral yow ñu tuubal ko ñu tuubal ko ah daa ku ma woo dama dafa ku la woo sama benn xarit waaw di ñaan fu mu ko Waly Seck fu ko Waly gaay ma tuddee ko Wally wala ah ah ah وعلى أشهد أن لا إله إلا الله وعلى أشهد أن لا إله إلا الله waxal waxal waaw waaw lu tax bëgg a ko gën man. turu yàlla rek lay dundee. waaw bu turu yàlla nag yow foog nga tuub. gars yi ma duma jinne bi. duma ko duma ko duma ko. duma ko duma ko.

jàng dina bi jàng dina bi jàng dina bi jàng jàng jàng jàng jàng jàng jàng jàng jàng jàng jàng jàng jàng jàng jàng Eh, kan moo ñeme jaar kan moo fi ñeme jaar kan moo fi ñeme jaar ku fi ñeme jaar kenn man moo ñeme naa jaar man ku fi ñeme jaar jël jël jël jël Done, done, done, done. yow jaan bu góor jaan bu góor yow da ngay mat da ngay sandi dangar da ngay sandi dangar biir bi yëpp ay dangar la nga naan lan biir bi yëpp ay dangar biir bi yëpp ay daxaar waaw léegi nag dama la bëgg a tuubal d'accord waaw waaw waaw man jaara soxna as léegi nag yow jaan man maa xool ku ma neex ma tuddee dinaa la may loolu sa ñaari jaan yooyu ma tuddee leen yow it man maa ngi xool ma neex ma tuddee on est d'accord ah? eh, pas d'accord pourquoi tu n'es pas d'accord. waaw dafa war dem heure bi heure dafa jot dafa war réussir. dafa war réussir. a ngi diggante fiwam. instant ngi diggante fiwam. waaw day waaj a génn mais avant ngay génn dama lay tuubal ba pare. léegi yow jàpp naa kii ñaari ji ñetti jinne benn bi góor la ñaar ñu jigéen kii mooy sen baay jinne bii mooy seen baay on est d'accord nga tuub on est d'accord. tànk waaw ah tànk bi day xasal ah jaan jaan jaan jaan jaan jaan jaanu jinne jaanu jinne jaanu jinne jaanu jinne jaanu jinne jaanu jinne jaanu jinne jaanu jinne jaanu jinne jaanu jinne jaanu jinne jaanu jinne jaanu jinne jaanu jinne jaanu jinne jaanu jinne jaan jaan jaan jaan jaan jaan jaan jaan jaan yoon yoon yoon yoon yoon jaanu junni jaanu junni jaanu junni jaanu junni jaan jaan jaan jaan jaan jaan jaan jaan jaan jaan jaan jaan Yeah. jaan jaan jaan jaan jaan jaan jaanu jinne jaanu jinne jaanu jinne kaay leen seetaan jaanu jinne jaanu jinne jaanu jinne kaay leen seetaan jaanu jinne jaanu jinne jaanu jinne jaanu jinne jaanu jinne jaanu jinne jaanu jinne jaanu jinne gaay ne leen jaanu jinne jaanu jinne jaanu jinne jaanu jinne jaanu jinne jaanu jinne jaanu jinne jaanu jinne jaanu jinne jaanu jinne jaanu jaanu jaanu jaanu jaanu jaanu jaanu jaanu jaanu ma bàyyi la lu tax maa ngi lay toroxal suba ba léegi lu tax ma lay toroxal dama laa def lu la kenn musta def ah da nag ci king da nga ñëw ci xalif général day jili da ñëw ci xalifa général kullu médecin traditionnel da ñëw ci kër papa yi jinne yi ñëw ci kër yàlla ah. léegi nag dafa bëgg nga bàyyi xale bu jigéen on Peso! Peso! Peso! Peso! ah <coughs> mu ne yine bir sen sen. Kaç o? Sen sen yine öyle Burada bir aksörün kaç o? Bana kafa. Kaçor, kaçor, yine kaçor, yine kaçor. Yine kaçor, yine kaçor, yine kaçor. Yine kaçor. Sa korda da ngay génn ci moom wala. maa ngi koy. maa ngi maa ngi sonal kan. ban xale. waaw. waaw parce que soxna Diarra ba tuddee boppam soxna Diarra. ba bëgg Diarra ba tuddee boppam soxna Diarra. kan moo sonn xale bi moo sonn wala yow. ah. yéen ñaar ku gën a sonn. ah gars yi bi nee na de lan ngeen wax. Ah? ko nga dem mu dem mu tuub mu tuub mu tuub. maa kii kan. lii lan. ba. lii jasit. jeexin dina bi gisatoo de muy jeexin. bu ñuul am ñu jaan jaan jaan jaan jaan jaan jaan jaan jaan jaan jaanu jinne jaanu jinne jaanu jinne kaa leen seetaan jaanu jinne kaa leen seetaan jaanu jinne jaan jaan jaan jaan jaan jaan jaan jaan jaan jaan jaan jaan jaan jaan jaan jaan jaan léegi nag da nga koy bàyyi. tuut tuut tuut tuut tuut tuut tuut ah. tuubu ilallah tuubu ilallah eh. léegi dama lay tuubal waxal ashhadu an laa ilaaha illallah dama lay tuubal ba pare nga génn ci xale bi dégg ba bàyyi dama lay tuubal nga génn ci biiru xale bi nga bàyyi xale bi liberté nga bàyyi ko ci jàmm ak salaam nga bàyyi ko tout tranquille on est d'accord gis naa biir bi kay léegi an la ilaha illallah وعلى أشهد أن لا إله إلا الله Thank you.

xale bi dama ko sonal de. da nga ko sonal. waaye tey dinaa la sonal de. xale bi. waaw xale bi fu ne dem na. fu ne dem na fan ak fan la dem. xale bi fu ne dem na fa Dakar war. ci kan ak kan la dem. Dakar war këpp këpp këpp këpp këpp këpp këpp. xale bi dem na fu ne fu ne fu ne fu ne fu ne. waaye yaay baayam de. gana. maay baayam. maay baayu kan. yaay baayam. maay baayu ñan. ah jinne ji. maay bàyyi kan maay bàyyi junne mala yi. maay bàyyi junne mala yi. nit ñi tàccu leen loolu waay. nit ñi loolu. maay maay bàyyi man. maay bàyyi junne ji. maay bàyyi junne ji. maay bàyyi junne ji fi yàlla rek la yor yow. gën a. fi yàlla rek la ñor yow. ne fi yàlla rek moo ma ñor. waaw waaw. yow kan yaa ko. man junne dun ko dun taa. yow jinne Tunku Dunka yow jinne Tunku Dunka yow jinne Tunku Dunka jinne Tunku Dunta tunkudunta tunkudunta tunkudunta kuntudunta kuntudunta kuntudunta bayi punca. baayu. puncu punca. baayu puncu punca. waaw. baayu puncu punca. eh wax leen baayu puncu punca. baayu puncu punca. baayu puncu punca. baayu puncu punca. baayu puncu punca. baayu puncu punca. moom moo wax ne la may baay. nee na may bàyyi. aa léegi génn ci waaw. moo tax ma koy dimbali. waaw fii ku fi ñëw am yaakaar ci kër ñu fas laa day toog rek. day toog rek waaw loolu moo ko ci génnee nga. ko ñibbi de mais yaa jee koy topp naan ñibbi rek. jaay dem dem dem dem waaye xale bi ba ci bam duggee ba tey dinaa ko doo ñëwaat ngir xam ko. di ko def nag bu mu ñëwaat. bu ne ko woon bu doo ñëwaat yow. waaw ko waxoon yow doo ñëwaat ci Thierno ko waxoon. ah da nga ko bu mu ñëwaat ci muy koyal di sangu. bàyyi eh, ba ñëpp tëdd muy boyal di sangu di suuru kon garab yi am na solo wala garab yi amul solo. garab yi ñoo ma lakk nga naan lan. garab lakk laa sama garab moo tax ma dindi ci xale bi benn moitié. moo tax. ma dindi ci xale bi benn moitié ci moom. ah moo tax nga dindi ci xale bi benn moitié. xale bi dafa naroon a dee xale bi dafa naroon dee. waaw kan moo ko naroon rey. man Tunkundunta. yow Tunkundunta. waaw waaw. Tunkundunta. Jinne Jaan. Eh. waa léegi tuubal Tumbulunta nga tuub tuubal la nga ci xale bi ñu bàyyi ko liberté mu nekk si jàmm ak salaam on est ñun ba tey añaguñu añ bi pare na añ baa ngi fi añ bi pare na ban heure moo jot ah 21 ba tey añaguñu añ baa ngi fi tey tey moom gis ngeen tey nag defe lu ma daan dal moo leen dal suma patient yi dama daan toog bu guddi du ma lekk waaw tey nag defe naa ne moo leen dal mais añ baa ngi añ bi pare la bu ñu paree ñu añ waaw am nañ añ ci biir tunkundun taa léegi dama bëgg nga tuub on est d'accord nga nekk suma taalibe di ma liggéey ah. lu ma la tere nga bàyyi lu ma la digal nga def on est d'accord waaw baayu jinne yi. baayu jinne yi xale bi macha allah. baayu jinne yi xale ah, waaw. waaw waaw. xale ah? léegi loolu loolu ma loolu laa bëgg nga bàyyi nga bàyyi ko tranquillement nga ñëw liggéeyal ma nekk suma taalibe nga ñëw di ma liggéeyal on est ah. yaa ngi ci biir léegi dama bëgg tuubal ma mën a tuubalee après nga génn ci xale bi ah? léegi am na xale ba mu dalee faju ba léegi dem na fu ne. dem waaw. mais bu fi ñëwee. mais bu fi ñëwee. damaa jaxase xel. da ngaa jaxase xel. maa ngi dugal fii dugal fii. nga naan ko jógal fii moo tax nga doon jaxase xel nga ma doon nga gisee. xaar ma ci saal bi dafa daw. ba ma ko xale bi dafa daw lan moo dawloo xale bi. waaw loolu sama cuuraay bi moo la jooni volcan mooy mooy cuuraay jooni jooni jooni jooni volcan cuuraay boobu moo la lakk cuuraay boobu am na am na am na doole gis cuuraay bi mel musoo gis cuuraay bu ne def nañ ko xale gis cuuraay bu xale bi cuuraay bu ne jox nañ ko waaye musul gis cuuraay bu mel nii. musu koo gis. musu koo gis. xale bi. dëgg la mu yaayam naan ko yaaye. cuuraay bu ne indil nga ko. waaye bi am na doole. xale bi mu ko doon wax yaayam mais maa ngi doon gën xelu yaayam naan mo demaat dëgg. maanaam yaayam ko yóbbuwaat. maa ngi sol ci xelu yaay ji. yaa sol ci xelu yaay waaw mais xale bi dafa dëgër bopp. mais eh, xale bi dafa dëgër bopp. dafa ñëw fii rek siisu. dafa ñëw fii rek siisu. mais yow depuis depuis depuis xale bi ñëwee fi xam nga ne sa pexe ci la jeex. la jeex kay ay daa xale bi ba mu duggee fii rek la commencé di jëpp jëpp. ba mu duggee fii la commencé jëpp jëpp. waaw ba ko may sunde bu jëpp jëpp seen waa kër sax am na ñu naan ko yow bi loo woon nii. seen waa kër. am na ñu naan ko bi nga lay faj man na ma yow bi loo woon nii. waaw. démb rek démb rek sax démb rek nag jox ko. démb rek démb rek wax na ko ko. démb bam yeewoo ci guddi gi dama ko kanam gi. da nga kanam. waaw accéléré ak nga xam ne ko fan yii waaye tey maa ko yaa ko def. daan yow yaay bi taw si di ko jaxase di ko yàqal. léegi nag dama ko mën a génne ci moom. la dégg nga. wala ashhadu an laa ilaaha illallah. ashhadu an laa ilaaha illallah. wa ashhadu anna buum nga. man Tounkounta Tounka. yow Tounkounta. Tounka gis naa ci biiru xale bi. maanaam tuub nga jo da ngay jóge ci biiru xale bi. waaw dinaa jóge ci biiru xale bi. di nga jóge ci bopp bi. ah. di nga di nga ko bàyyi ci jàmm. bopp bi daal daal daal mais biir bi yow. biir bi dañ ko traité de. lu tax ma koy traité du ma ko traité de da ngay génn ci biir bi <laughs> carrément. su ma la di ko traité. ko traité. lan laa def ci biir bi nga naan bi. doon ju deret bu ñuul kooku. doon ju mais yow mi ko def dama bëgg nga dindi nga génnee doon ju deret na nekk wala mënul nekk. yow man du ma a neexal de su ma yat laa yor su ma xiir man du ma neexal ji ci toog ñam moom xale bi moo leen gën a lii de naa ko gën a jàpp laaw nga ne ñi fi maa gën a jàpp xale bi yaa gën a jàpp xale bi fi nu ju kon laa jinne yi fi nekk ñoom ñen ñoo gën a soxor man naa gën a soxor ñaan laa daway wundeelu ci yaramu xale bi si tàngal yaram bi chaque jour yow yaay tàngal yaram bi chaque waaw damay tàggal xale bi yaramam. yow jaam nga. waaw jaam naa. tunku ndunta. ndunta jaam. waaw léegi xam nga ne tuub nga kon. kon bés ni ki tey dugg ci diine l'islam. on est d'accord. diine l'islam. ne Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. waaw sànq maa ngi laajte. Pape Sidi mu ne ñu tuddee ko kan. Waly Seck Waly Seck Pape Sidi mu ne ñu tuddee ko Waly. mooy dóor de. ah. Waly Seck rek. gaa yëpp ne nañu Waly Seck. Ah, ah. laajteel yëpp d'accord nañu ci. donc noonu taa dinaa la tuddee tur léegi man maa de nga def. mooy man man maa la yilif moi qui commande ici su ma neexee tuddee la mbuus su ma neexee tuddee la suuf Moi, je suis la C'est moi qui commande. Tu commandes quand tu man maay commandé bu ma neex laa lay tuddee bu ma neexee ma tuddee la suma caméraman Pape Sy su ma neexee ma la sumay dàll su ma neexee ma tuddee la suma mbaxane tàcc leen ma waay kon bés ni ngi dama ko bëggoon tuddee Waly Seck mu ne bu ma ko tuddee Waly Seck man dama koy tuddee Waly Seck man maa ko yilif a yilif seetaan leen lii suma caméraman bi nee na naa ko tuddee Waly Seck ma ne dama koy tuddee mu ne bu ma ko tuddee Waly Seck man maa koy tuddee Waly Seck tàccu leen loolu tunkundutaa léegi dama lay tuddee Wally Seck dem ba pare indiwaat tunkundutaa maanaam Wally Seck tunkundutaa parce que tunkundutaa bi daf maa neex en ah, Pape Sy. waaw. loolu instrument la sax. waaw man nag xaw ma Wally Seck dama koy gis ci télé bi noonu rek xaw ma ko ah. waaw papam dem tuddee naa ko fii jinne John Seck am na fi turandoo. Youssou Ndour am na fi turandoo Bougane Gueye Dany am na fi turandoo Amadou Ba am na fi turandoo président Macky Sall am na fi turandoo Serigne am na fi Ibrahim Niass am na fi turandoo Serigne Babacar Sy am na fi turandoo Marème Marème Faye Sall am na fi turandoo kilifa yëpp naa leen tuddee ay jinne ndax jinne yi mënu ma leen jeexal jinne bu ma jàpp naa xool ku ma ko man moom am am amagum naa ñaari turandoo jinne waaw ñaari turandoo jinne kenn ki démb si guddi la jinne bi bés ni ki tey Wally Seck am na turandoo jinne waaw maa ngi koy may bés naka ah. tàccu ma waay am na ay sëriñ de waaye kenn mosu ko tuddee jinne kon tuddee naa jinne bi Waly Tunkundunta Waly Seck tuddee naa ko jinne bi. kàcc na ko Pape Diouf. ah. Eh, ko Pape Diouf kon ko Waly Seck Tunkundunta eh noo tudd. loo tudd dina nan nga tudd nee na Wally Ballago Seck noo tudd gars yi tàcc loolu waay jinne yi dañoo dégg ndigal boo tuubalee jinne koo ko tuddee kooku tur boobu lay tur jinne boo ko jàppee sonal ko tur bi nga ko tur boobu lay uyoo kon bés ni ki tey Wally Seck am na jinne tàccu leen Thierno Moule noo tudd noo tudd waa ci kaw noo tudd kon jinne bi nangu na mm-hmm. Wally Ballago Seck kon Guinée bi nangu na tur bi Pape Sidi. macha bi nangu na tur bi. waaw. kon tàccu leen Thierno Moule ay xalif bi. le xalif général di jin papay Guinée yi baayu Guinée yi. waaw. le maraîchage le mugutu. le maréchal Mobutu Thierno Moule Sow le général tàccu général tàccu leen tàccu leen général tamit tuddee naa ko jinne léegi on est d'accord da xale bi léegi da ngaa di ko bàyyi di nga génn si biir ah. sonal naa la. na ne waxal bu baax jinne bi dafa sonn nag may waxal bu baax. da ngaa jinne bi nee na dafa sonn. dafa naa ci biir génnal nga dem xaar ma ci sama néeg. jinne jinne yow lan ngay dundee lan nga sànq rek laay dundee. nga dem sànq laay dundee. ah loolu amul sama kër fii de. dina looy dundee. lay wax ci kaw lan ngay dundee. man daal laa doon dundee. nga na. kat laa doon dundee. noo doon dundee loolu. ah. noo ko dundee. maa ne woon xale bi rek ne ci taata bi rek. waaw. ci taata bi rek di di. di lëxlëxee taata bi rek. mais c'est important mu wax pour nit ñi dégg. parce que jinne yi dañuy dugg nit ñi nekk comme lu wax nii. waaw c'est important. léegi da daan nekk fan. ci taatam yeeg ci weenam rek noflaay. noflaay di def lan. feeñu xale bi muy tëdd rek. ba tëb dee bu yeewoo taata bi di tooy loolu laa daa def xale bi man. loolu nga daan def xale bi. kon bés ni ki xam nga ne loolu dog na loolu jeex na léegi dama bëgg donju deret bi nekk ci biir dama bëgg nga génnee ko léegi léegi nga génn ci bopp xale bi nga dem xaar ma ci néeg bi yaa ngi dégg maa ngi ñëw Wally Seck noo tudd eh, jinne bi nee na Wally Seck la tudd ceeg ceeb ba mu leen sow da jàpp ay jinne di ko tuuba di ko tuddee ay nit ah! kon Wally Seck jinne Wally Seck kon génnal ci xale bi mu gaaw génnal génnal

génnal génnal génnal génnal wàcc ko génnal génnal génnal génnal génnal génnal génnal génnal génnal génnal wàcc génnal si moom génnal si biir génnal génnal génnal génnal génnal génnal génnal génnal génnal génnal génnal génnal génnal génnal Wally Seck génnal génnal Wally Seck Djily Wally Seck gënal gënal Djily Wally Seck gënal gënal da xaar génn ah Wally Seck gënal gënal si moom ah yaa ngi koy wàcculoo gis moo ngi koy wàcculoo pour mu génn encouragé leen ko waaye Wally Seck Wally Seck Wally Seck Wally Seck ginna ginna ginna ginna ginna ginna ginna ginna ginna ginna ginna yeltu yeltu yeltu Wally bu yeltu Wally yeltu yeltu yeltu yeltu yeltu yeltu yeltu Wally yeltu yeltu génnal Wally génnal génnal génnal génnal génnal génnal waay génnal génnal génnal génnal génnal génnal génnal génnal génnal génnal yëlt yëlt yëlt yëlt yëlt yëlt yëlt yëlt yëlt yëlt kiti saaya balaya saaya wëlent ëllëg sigil nañ si ëllëg sigil xool ma face à face sigil nga xool xool mu daw gis nga ci ne baa ngi fi gaay sigil xool buldown. Desire, Polaya Saya. Wouldn't the Allah, a second in the Allah, Kulu Allah. Samad, Ya Billah, Ya Wallah, Alfa Yujay, Alfa Yubatan, Kurjin, Sojin, Pantaki, Kurjin, Sojin na Uli, Karayanna, Nabiyanna, Nabi Nure, Nurete, Sojin, So Sojin, Kizi Kasa, Koi Kasa, Samsi sama ruusi Samsi sama ruusi Samsi sama ruusi Samsi sama Samsi sama Samsi sama ruusi ah wàcce kiti saya bolo ya saya ولن تؤل سجلت الله قل الله صمد يا بالله يا والله الفا الجاي الفا الفاتح كل جنة سو جنة بنت جنة كل جنة برايانا ربيانا ايه بيتي سو جنة سو سو جنة كيسي كاسا كاسا سامسي samurmusi samsi samurmusi samsi samurmusi samsi samurmusi samsi samurmusi samsi samurmusi samsi samurmusi kiti saya bala ya saya wul ci ande sa gëna kulu allah saban ya billahi ya wallahi alfayi je alfayi batin kurjeji sojin na bantancin kurjeji sojin na udu koro yanna nabi yanna nabi dure durate sojin sojin kisi kasa koi kasa samsi samurus samsi samurus samsi samurus wani wani jinaji fajin na biyu Kiti saya, boloya saya, wannan da Allah ya sagi nan da illo, kunu Allahu, samadu, ya billahi, alpha yu jeeri alpha yu batini ɓurjinna sojinna batanjinna kurjinna sojinna ɓuuɗi koroyenna naɓiyenna naɓi nure nurete kiisi kaas koye kaas samsi samorus samsi samorus iti saya wala ya saya بقلبك سمينا سما يا بالله يا وحي الفاي جاي الفاي سوجي ورا يندك نبي يندك نبي نوري نوري جاي سوجي سوجي ديس كاسا سامسي سامسي سامسي سامسي Саморус, Самсик, Саморус, Самсик, Саморус, Самсик, Саморус, Самсик, Саморус, Кирисая. ولا سارة ولم تألف الله سبس يا بلا يا والله الفايل جاي الفايل باتي كورجين سوجين فانتاجي كورجين سوجين كورجين كراينا نبينا نبي نوري نوري soji so soji kinsi kaasi koy kaasi samsu sama ruusu samsu sama ruusu samsu sama ruusu samsu sama ruusu samsu sama ruusu samsu sama ruusu samsu sama ruusu samsu sama ruusu samsu sama ruusu samsu sama ruusu samsu sama ruusu yow la xaalis yow lan yow yow lan yow yow lan yow yow lan yow yow lan yow yow lan yow lan nga def fii xamoo loo doon yow muus la wala kañ la wala ginnaaw la yaa ngi fan. kër Thierno Moule. yaa ngi kër Thierno Moule. waaw. lan ngay def kër Thierno Moule. mais aw ma ko waay. ah. aw ma ko. xamoo loo def fii. lan moo lay indi kër Thierno Moule. xamoo ko. yow lan nga noo tudd. xamoo noo tudd. ba pare xamoo foo dëkk. loolu est-ce que mun na nekk. yow lan nga. laay xaw ma doon. xamoo loo doon kon tey dinaa la xamal li nga doon. kiti saaya wala yaa saaya. warante ëllëg sajinante ëllëgu kulu ak yaa sawa yaa billahi yaa wallahi alfa yu tey alfa yu baati kurjin sojin na baati kurjin sojin na uul koro yenna soosoosu kii si kaas koy kaas sams sama ruus sams sama ruus sams sama ruus sams sama ruus yow lan ce sooji soosoosu kii si kaas koy kaas sams sama ruus sams sama ruus gane ma bàyyi yow noo tudd noo tudd yow lan nga yow lan nga amoon ci gars yi ma jaxase ko ah. jaxase ko. waxal mu gaaw gars yi nee nañ la wax mu gaaw. yow noo tudd. noo tudd. s'il vous plaît comment tu t'appelles. comment tu t'appelles what's your name. hey eh, what's your name what's your name. nga ne. je tu me laisses. pourquoi je te laisse. tu eh tu dis tu m'emmerdes. gars yi dina du réew na ah. quest qu'est-ce que tu dis. qu'est-ce que tu dis. tu es impoli ah. tu n'es pas de respect ah. Ta gueule. Aujourd'hui, tu vas parler avec moi. Sinon, je vais te siffler. Je vais te caresser. Caresser. Caresser. Mélanger. Ana dina Thierno Moule Sow. On n'appelle pas. Ana dina. Khalifa général. Khalifa général. Ana dina. Khalifa général. Khalifa général. Khalifa général. Général. jaxase jaxase jaxase jaxase jaxase mélanger jaxase jaxase ana suma ji ana Macky Fall ana Macky Fall eh, ana Wally Seck dina Wally Seck ana nga ana dina Wally ana dina Wally kaay kaay Kaay kaay kaay Waly Diané Diané Diané ana Waly ana Waly ana Cina Waly ana Waly Seck ana Cina Waly kaay commandé kaay kaay kaay kaay kaay commandé Cina kaay kaay kaay kaay kaay Waly Waly Waly. loolu la kaay yaa ngi dégg. ah yaa ngi génn si ñoom ah waa génn dina baali mu ne moo ñu génn. yaa ngi génn si moom waaye nag gaaw na bar na bar waaye na bar bar bar bar bar Eh, ta gueule, Dine, comment tu t'appelles Réponds-moi, sinon je veux. Zifle, comment tu t'appelles Comment tu t'appelles Moussa. Moussa Comment tu t'appelles Moussa Moussa comment Ah À mon sens. Qui Moussa la tudd nee naa Moussa. Jinne Jinne Moussa Jinne Moussa Jinne Moussa Jinne Moussa Jinne Moussa Jinne Moussa Jinne Moussa Jinne Moussa Jinne Moussa Kiné Moussa Kiné Moussa Kiné Moussa Kiné Moussa Kiné Moussa Kiné Moussa Kiné Moussa Kiné Moussa Kiné Moussa Kiné Moussa Kiné Moussa Moussa Moussa Alpicelero Moussa Fassigelo Moussa Ndiaye ma jàppaat beneen diine mu tudd Moussa jàppaat nañ beneen Moussa Moussa lan ngay def fii góor laay waxal wala jigéen ah Moussa yow lan nga yow lu la neex ngay mel kon ban façon la nag lan ngay soppaleeku doon góor da doon jigéen ki nga dugg nii nag lu tax nga dugg ko da am na jëkkër wala amul jëkkër. waaw dafa am jëkkër. ah. waaw. dafa am jëkkër. waaw léegi yow borom jëkkër nag lan ngay def ci moom. xanaa mënoo dem xool ni sax nga bàyyi borom ni ko. ah. da nga ko bëgg. dem nga église. ñëw nga ci Thierno Moule. ah. waaw ñëw nga de waaye man duma nangu ah da nga koy bàyyi ah. ah. bu ma neexee nga bàyyi ah dina Moussa mu tuubal la mu tuubal ah. Moussa Moussa ah Moussa Moussa Moussa Moussa Moussa Moussa Moussa léegi ma tuubal voilà voilà ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abdu wa rasuluhu bés ni ki tey tuub naa ci diine lislaam man Moussa Pape Sidi ah. waaw tuubal nañ Moussa Moussa Moustapha Niass ah Moussa Moustapha Niass ah Moustapha Niass ok ah ah ok toi tu parles français oui parle-moi français Moussa pourquoi di parler wolof Moussa na def xam nga tuubal naa la léegi maa ngi laaj ca caméraman bi kan laa la war a tuddee ne naa la tuddee Moustapha Niass n'est-ce pas. waaw ah. waaw Moustapha Niass tur boobu neex na la. ah nee na tur boobu neex na ko Moustapha Niass ah ah Moustapha Niass. kon gaay bés ni ki tey jinne bi Moussa la tudd. allahu akbar. tuddee naa ko Moustapha Niass. sigil. Moustapha Niass ah. yow noo tudd. noo tudd. noo sant. noo tudd. Niass Kumba Abdallah. nee naa Moustapha Niass tàccu leen président la assemblée ah kon naa ko président assemblée Moustapha Niasse maa ngi leen di tuddee ay jinne rek de ah, ah maa ngi leen di rek ay jinne kon jinne bi teel na cëpp teel na naa ko Moustapha Niasse président assemblée nationale Moustapha Niasse non sunu yow ah non sant ah ñaas Moustapha Niass léegi yow dama bëgg nga génn ci xale bu jigéen bi dégg nga ko bëgg waaye bëgg bi jeex na tey fii lay yem da ngay génn ci moom dégg nga ah. ba xam di nga a gis xale bu jigéen. Uh-huh. yow kay xale jigéen boo kay génn ko. yow dina ko bàyyi kon Jinne Moustapha Niass bàyyi na xale bi génnal ci moom génnal yow ci Jinne yow ci yow ci yow ci yow ci yow ci Niass yow ci Moustapha Niass Moustapha Niass génnal ci moom génnal ci moom génnal ci xale bi Moustapha Niass Moustapha Niass Jinne Moustapha Niass génnal ci moom génnal ci moom génnal ci moom génnal ci moom nga bàyyi ko ak jëkkëram demal ci moom soor soor soor soor soor soor soor soor soor soor Moustapha Niass génnal génnal génnal Moustapha Niass génnal soor soor soor soor soor soor soor soor soor soor soor soor wala seen bopp génn ak wala seen génn ak ñu yeewu rek noonu tudd soxna si ah Jeynaba nga tudd nee na Jeynaba la tudd boo dëkk ah mbuur nga dëkk dafa am ñoo àndal fii wala yow rek laa ñëw da nga ñëw naa dem eh tàccu leen ñu tey na ba nee na mbuur la jóge jóge danga ah bëggoo jóg ah lan la ah so tawde feewi ara jinne jinne Moussa moo nekkoon ci moom ñu génnee ko moom soxna si Jeynaba la tudd ñu tuddee jinne bi nekkoon ci moom Moustapha Niass tàccu leen lii waay tàccu leen loolu Dawda Kane ah yow la kan ah yow la Waly waaw taa demoo ba génn ah sonn nga gars yi Waly nee na naa ko génne bëgg na génn mais dafa sonn Waly nee na naa ko génne ci ndaw si ndax bëgg na génn waaye dafa sonn da ngaa sonn. léegi nga génn ci ndaw si ah. léegi bëgg nga ko génn bàyyi ko liberté bëgg nga ko may liberté ah léegi bëgg nee na bëgg may liberté total ah maa ngi maas sa mu ne maa ngi maas loxo bi maa ngi maas loxo Yalt, yalt, one. Yalt, yalt, yalt, yalt, yalt, yalt, yalt, yalt, yalt, yalt, yalt, yalt, génnal waat génnal génnal génnal ci moom génnal ci moom génnal ci moom génnal ci moom génnal ci moom génnal ci moom génnal ci moom génnal ci moom génnal ci moom génnal ci moom génnal ci moom génnal ci moom génnal ci moom génnal ci moom génnal ci moom génnal ci moom génnal ci moom génn yat yat yat génn génn génn génn yat yat yat yat yat génn génn ci moom génn ci moom waay génn génn génn génn génn.

soor soor soor soor ci moom. xam nga dafa ne woon dafa def donte deret ci biir bi génn donte deret génn génn ci moom génn ci moom waaye génn ci moom génn ci moom génn ci moom génn ci moom génn ci moom. génn ci moom génn ci moom génn ci moom génn ci moom génn ci moom génn ci moom génn ci moom jëlal waat Ah. one, one, one, one, one, one, one. nga génn ci ndaw si lu lu tax ah? ko duggee moo yàgg ana doom ju deret bi ah ci biir waaye dina seey man moo koy seeyal ah lu koy seeyal budee waxoon ko bi dolli waatal waali dolli waaw dolli tuuti mooy yow gisatoo loolu dem ñibbi yàlla Uy, uy, uy, Boo nekk laay noon génn génn génnal génnal génnal génnal génnal génnal génnal génnal génnal génnal génnal génn génn génn génn génn génn génn génn loo jooy xanaa sonn génn génn ah yaa ngi génn

a génn dem dem sang ma daane

Yeah. Sono. Makan. Ah. Kamu jin nawali. Bagi lagi dulu Hasan. Thank you. forcé forcé forcé forcé forcé forcé forcé génnal génnal génnal

ci moom guddi na magam leer na jinne bi génn na noo tudd soxna foo dëkk tàccu leen waay xam nga ji dafa yàgg ci biir bi dafa yàgg ci biir bi nekk nekk donju deret léegi nag pour rek bañ a génn dafa créer li nga xamante maanaam pour du mën a génnati foofu aduna moo tax mu créé loolu gis nga ba mu buggee génn sax dafa sonn moom ci boppam gis nga ba mu buggee génn moom ci boppam dafa sonn ah soxna foo dëkk Lamsar taxi leen

sa yaa ñëwul tey yow rek yaa ñëw a ah? tàccu leen lii waay bi jinne bi dem na soxna moo fi nekk soxna yow sànq li ma doon def ak yow ko doon yëg wala ah ah ah yaa ko doon yëg wala nee na yëgul li ma doon def ak moom sànq eh dindi sa kaala bi yow waaye jógal jógal jógal kon Wally Ballago dem na instant bi soxna moo fi nekk jógal

yow nga baago affaire yi jéem jàpp ci ne mu rëcc mais damay sànd meep doo rëcc dama lay am na jinne bëri ma jàpp ñuy rëcc après wax yàlla maa c'est le meilleur. ah jàpp nga. réaction man normal kay. réaction man normal kay. est-ce que boo war a waay. Yoroon woon foofu. Thank you.